nee na xanaa di gën a wax rek li waral yi lay liggéey bii diirub ñu doon def si sikru laahi bii nee dafa xam ne rekk war na noo sax dàkk di sant sëriñ bi nee na ca xamuñu lu ñu koy sante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 sant. gën koo sant rek. ci boole gi ñu boole ak sëriñ bi. ci boole jum ñu boole. ak sëriñ bi. ndax mënuñu koo sant waaye mën nañoo jéem. nee mënuñu koo sant day waaye mën ci biir loolu. nee ci biir loolu. ginnaaw Cheikh Ibrahima moom dafa sëriñ bi. moom dafa am xaas ci sëriñ bi. nee na ci biir loolu. mu am xaas ci zikrullahi. mu dellu am xaas nag ci baatub zikrullahi. nee loolu moo tax. mu waxoon rek ni nan sàkk ab diir boo xam ni. dañuy nekk rek ci zikrullahi. diir boobu ci biir bis boobu bis bi biñ koy defee. nee diir boobu ci bis biñ koy defee.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 ñu dellu rek féete ñu ci ndax ñun ñëpp a ko bokk te ñun ñëpp la war waaye ñun ñu delloo ko njabootu Cheikh Ibra Fall gi ñu féete ñu ci nee loolu rek kon moo doon xew-xew bii nee loolu lépp itam maa ngi jéggalu bu baax ñi ma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 ñoom ay kilifa lañu. yàllaa ko def. nee na moom mii nag. ab dong rek la. ab dong rek la. waaw moo nee moo tax am na ci yooyu nag. ab dong ko ab dong koy moo koy man. nee loolu moo tax nag. kon nee na mi koy jégalu ñi ko bokkal. ndax bu dul woon yëfi dongo. kenn ku nekk dana ñëw ci yow wala mu yónnee ci yow yëgal la kenn ku nekk dina ñëw ci yow baa mu yónnee ci yow yëgal la ko. waaye yëfi la. waaye ne yëfi dongo la. loo ne yëfi dongo nag. nee dafa xam ne yëfi dongo nag. nee yëfi dong kat.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 nee na ñii ñoom. yàgg naa wax ne ñoom samay sang lañu. yàgg naa wax ni bokkam yii ay sangam lañu. kon ginnaaw ab donga nag. nee ginnaaw ab donga la nag. njabootu Seex gii. njabootu Seex Ibra gii. ak mboolem taalibe yi. ak mboolem taalibe yi.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 déglu ndigal rek. toog fa di déglu ndigal rek. ndax man waxtu maa ngi xalaat. ndax nee na moom waxtu wu ne mi ngi xalaat. nu mën a gën a mën a liggéeyal sëriñ bi. nu nu def rek ba gën a mën a liggéeyal sëriñ bi. gën koo mën a sant. gën koo mën a wax ne lu ci ak ci sama xel. day wax ni moom lu aju ci xelam. lu ci ci sama xel. lu am xelam. xam naa ne sëriñ bi la. xam naa ni taw féexi sëriñ bi rek la. moo koy gàttandu rek. waaye moom day mel na ni ku xamul dara. jéemu loo xam dara it ci boppam. xanaa nu mu mën a liggéeyale sëriñ bi rek. te yéene ko bokkam yi lool. yéene ko it bokki taalibe yëpp. kon nee jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf. amiin Mbàkke Balla amiin Mbàkke Balla